njaboot soo ko amee juumte du ñàkk di doom aadama matul waaye li ma bëgg a njëkk a wax mooy ñaari nit ñi benn kër lañ benn nit lañ benn famille lañ waaye pour leneen nit ay junne junne nit dinañ nekk bër bu set te dara du xew dimbalal yàlla rek la yàlla ak ñoo dimbale léeg-léeg ay juumte am waaye su amee rek kilifa yi dañoo dajaloo waxtaan ko seet ki juum ñu teg la ci yoon ñun ñoo ambassadeur senegal seen ñun ñoo ministre force armée bi nekk dakaar ak kilifa yëpp toujours ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci jokkoo di ci dox loolu baax na bu leer ci boppi nit ñi waaye jàmm bi amoon ñu ngi seet léeg-léeg nappakat yi ci géej gi ah yal na ñu yàlla baalal ci biir njaboot ci itam léeg-léeg nga am ñoo xam ne dañoo jàll sart def waaye diggante Gambie Sénégal moom li ko kilifa yi waxee rek la dinaa baax nag ma waxaale ci dara sëñ Mbaye Sy Mansour suñ kilifa xalifa général Tidiane ba mu ñëwee Gambie président ñu dem nuyu ko tatagal ko daf ma ne ma waxal président ne ñu ngi ñaanal Sénégal yëpp a ngi koo ñaanal waaye maa ngi leen a ñaan itam ne jàmm ji ngeen fi am ngeen téye ko te bu ko kenn caaxaani ma waxa suñ mbokki murit yi euh, xaadimul rasool ku tedd ki ñu ne ma ah sëñ bi day li mu waxoon mooy li la kilifa ji wax mooy ne bañ ko laajee mbiri jàmm dafa ne xaw ma lu ko gën fii xaw ma lu ko gën fañ jëm cheikh al islam bu ñu ko waxee itam dafa ne yal nañu yàlla may jàmm juñ xam ne jàmm la ndik mun nga am jàmm te doo xam ne jàmm la kon Gambie jàmm ji nekk diggante Gambie Sénégal nañ ko fonka ñu dëgëral ko ñu rafetal ko mooy ne jàmm jooju la ñoo ñaan sëriñ bi ñaanal ñu ci kilifa ñaan fii ba Banjul ba dakaar ba Kaolack muy Ceneba muy Tiwaawoon muy Touba muy njegeen muy Njaasaan fu mun a ne président Baro tàllal na la loxoom mu ngee ñaan pour ñu ñaan jàmm mu wax population itam ñu nekk ci jàmm ndi jàmm rek a mat a ñaan jàmm rek am njëriñ monsieur le ministre kon jàmmarloo boobu amoon na amoon na lu ñu wax misunderstanding boo xam ne kii dafa ne fii laa doon nappee waaye territoire bi kenn territoire bi kenn marqué wu ko mhm. <laughs> ñu ngi koo gis ni benn mbokk mhm. ñii kër yii ñu ngi ci Sénégal am na kër yoo xam ne ñu ngi ci Gambie mhm. mais loolu nag foog nit ñi ànd ak seen sago ñu def ndànk ñu dal te xam ne benn njaboot la.